tax gisoo temps yi sama lekk. Hmm. nen nen yi la ak spaghetti bolognaise mais le 21 léegi mu pare. léegi mu pare na. Hmm, hmm. xam nga ni yaay yàgg na. yaa Aba mooy marraine bi. jeex na kon xam nga ni le 21 bu bari doole. yaa ko maa loo ma xam la yow la max ma lan la. la max moom a ngeem. tey dëgg neexul. waaw yaa ngi bougé. waaw waaye jokoon. dem ñëwaat waaw maa ngi. basa mbay dégg dem ñëw naa ko toj ba mokk boo ñëwee di fekk ma def ko doom waaw kay léegi vieux léegi vieux toogal ma nii yéen toogal leen ma ne def naa kër gi stade ok stade laa ko def stade Caroline Faye laa ko def waaw kay dafa mel daa des benn xaaral ma ñëw leen léegi ki ñu dalal fii ci biir kër gi moom mooy Vieux Niang Bongo ku ko déggul xam nga ko ci ambiance lay dox ambianceur la mi ngi international États-Unis France fépp foo xam ne yaa ngi fay gis doomu sénégalais yi rek Vieux Niang mi ngi dem di leen fa bégal ci bongo bi donc li mu def ne gisoo ni may appâté gisoo ni may appâté Vieux Niang Bongo waaw Mbaye lay ziar. doole wax xale yaa ngi noonu. waaw ngi nii. Ah. waaw wax naa leen ko. nee naa leen euh, ku ci xeesu da ngaa ñuul te ñëpp rafet. seen TV mooy suñ TV. Mm-hmm. télé askan bi la xale yaa ngi nii ku ci xeesu da ngaa ñuul te ñëpp rafet te namuñu Rihanna faale wuñ see nit li tax ma loolu mooy nit da nga sa bopp xale yi rafet nañ macha allah. te seen TV day télé askan bi. ñu ni yendu leen. Mm-hmm. ah miin naa kër gi nag mm-hmm. kon tey dañuy fasa fas yéene wasaare. Mm-hmm. taasu ba mbaam génn suñu gémmi. déggal lii ndax defe naa bi mooy ñaari yoon. bi ma ñëwee léegi ci tele xew yi ñoo ma poñe ba nga xamante si ni au ma sax taa dem ci tele yi. waaye tey jii dana mel ni ñaari du fi football tey jii fii day toj. non tey la taasu ba mbaam génn sama génn. ay ca dañuy arrière ñii vieux ñu waxtaanee. waaw am man ci ambiance ci lay doon waaw kay léegi vieux. ñu gis ni jamono ji bongo ji bari na trop ku jóg gàddu bongo. guddal say rasa ba fii. waaw. du sol say peew yaakaar ni ngeen di lu la yëgal nga dem buñ la yëgalul nga dem. Hmm. ñooñu je pense que dañuy yàq deru bongo. waaw waaw kay yow parce que boo xoolee bongo gi yow bu buñ la xoolee car macha allah da ngay sañse ba mu jekk donc bongo du forox du gën a foroxle. Hmm. mais maanaam dañ koy teg ci temps comme ni koy tegee ci temps lan mooy secret bi. Hmm. da nga leen a gën a miin yoon bi wala c'est quoi le problème lan mooy secret bongo bi. no du gën a miin yoon bi ndax ñun ñëpp ñu bokk teen ñooy laxasandooy goj ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def mais gëm-gëm ak personnalité ak fulla nit moo koy may boppam man dama gëm ni lii nii kii di jaay keccax amu ci dara nga gis démb nit ñëw jaay keccax am ci ay milliards gëm-gëm la moom moo tax te lépp keccax keccax kon leket leket la bongo bongo la ñu koy def nag di ñàkk fayda saa su ne te senegal dañoo toll ci benn jamono joo xam ni monde boo xam ne link la mhm. xale yi dañuy mat cent personnes jigéen ñi dañu tey bu dee Viegna da leen tëggal chaque jour Viegna du ñëw du fa def ambiance du fa taasu lu nit ñi xam ñëw na koratul xale yi ñoom ñooy manquowaat seen liñ comme ni téléphone mel branchement la mm. Marina ni bul woo Viegna ah, ah, yaa awa ni bul woo kii mm-hmm. ma jigéen ni bul woo kii affaire yooyu xam nga noonu lay demee link boobu ba sa affaire yàqu mm-hmm. mais tey yàlla dimbali na ma ci lenn loo xamante si nii tey fu nit amee xew rek buñ ñëwee Viegna rek dañ naan est-ce dina ñëw waaw ah. ce que dina ñëw te dëgg la mm. ndax man rek maa fi nekk bongo maan fi Sénégal bu fi tëgg xew heure mm. da may woo tey ni ma midi ba trois heures arrêté naa wayaan naa fay nga ma trois heures ba set heures am na feneen fu may dem sept heures ba vingt trois heures am na fu may dem chaque jour damay gérer macha ñaari xew ci jour bi wala ñett loolu man maa am risque woon xam la moo tax mm. dama dem ba macha allah nit ñi soxla ma ba pare te bëgguma kenn mer. Mhm. samay nit lañ te bañ may jàppale booba tollu ma fii nii moo tax tey bu ñu demee ba lii demee nii lu ma xat xat xat xat dama leen ciy boole looloo tax ma dem ba jël charge yooyu noonu ko def. Mhm. mais naa toog di def sama benn bongo man di def sama benn xew journée la ma ñëw tëgg ko yenn tëgg wayaan dem sama yoon. Mhm. mais damaa dem ba nga xamante tey yaaw mën na ma woo tey mën naa engagé mbay ma ñëw tëggal ko mu ne ma fii dama bëgg nga ñëw midi ba 5 heures yaaw ci jour noonu mu ma ma fii 5 heures 18 heures dama am xew. wala dama am euh, kii ma ne ko ah man jël naa programme mu mbay nu muy demee nag waaw naa ko jéem a xajal loolu tam risque yooyu laay jël ndax bëgguma kii mer. mais ma neexoon di toog man dong. Mhm. nañu am fulla mhm. am fayda bongo liggéey la. ci kaw nga gëm ko. Mhm. du ma ne kenn bul def lii wala laa mais nañ am fulla leket yii nii waxuma la Sénégal waaye boo génnee. ñoo ñu gën a bëgg sax yi programme bongo parce que Serigne Abdou Karim Mbacke mais est-ce que man li ma mën a muñ toog ni man mii tey weer bu ma toogee tëggiwuma ak sama groupe ku ma woo sa xew wóoruma taxawaaluma est ce que ñooñu mën nañ muñ loolu tamit. voilà nit ñi ñoo bokkul xëy na nag buñ ci tollee ñoom ay jamono buñ demee ba xool gis changement gis yokkute te léegi xale yi kenn mënatu leen a nax. nit ñi léegi ñoo yeewu boo nekkee di wër dañ lay dañ lay woyee di loo. ni da nga am fulla am fayda ci li ngay def gars yi gëm leen seen bopp. Mm-hmm. te xam ni bongo liggéey la mën na la teral. macha allah man moom rëccuwuma lu ma doon bongo. teral na la fi rëccuwuma bongo teral na ko ndax bu ne bongo teral na ko parce moom même bu dul dara dañuy wax ci cadre nit boo nit bu simple la. Mhm. gëm na lu muy def te fonk na doomu aadama te gis nañ ne ci bongo yi vie am na ci am na ci visa. Mhm. dem na ci dëkk bu nekk. loolu noonu lan moo ko waral ak nan lay demee par étape la par étape la ba nga am loolu wala lan la. waa gëm-gëm la. Mhm. mooy gëm-gëm li ma la wax rek. Tyson moo ma ko lii bu lu tax musicien buy dem bëgg taasu wala bëgg ku mottali dara ci seenam ambiance pour def ndax lii marimba la comme marimba yeneen tey mënoon na def tournée yóbbu benn marimba kese man bu ma ñëwee bu ñu ma amplifier bongo bi mën naa cee jàpp mu gën a fees looloo tax musicien bi ñu dem te dañuy xool ki nga xam ne am na possibilité wala am na moyen pour dem ñu ànd ak moom. Mm. ndax gis nga léegi dëkk bi ni mu demee. gars yi léegi avancé benn tournée bu amoon ñu boole woon ci Véñaan dem ba dernier mois Véñaan moom dematul. waaw ba loolu dañu ne ne du succès tournée du succès du succès du succès ndax euh, man dafa am lu may jógee. Mm. ndax tournée boobu noonu bi koy sóob di ko def. Mm. damay jóge damay jógee Amérique euh, quatre jours. ñoom Khalifa ma ak Babsu Diaspora. biñ mooy expliquer ma ma ne leen dama fi am ay xew. ndax dama yor ay frère te ñoom ñëpp dañu am jabar te ci man lañ nekk kon su may génn fii man saa su may génn Pape Faye heure may dem Europe Pape Faye laay jox sama numéro Sénégal pour nit ñi samay nit di ko mën di woo ma ni leen comme que da ngeen fee organiser waa tournée teel laa toog di wax da ngeen may teel a wax maag daam seen ndax gis naa fi keroog ñoo ñoo waroon dem ak ñoom pendoo ma ne ko ngeen ma teelee wax billet bi jël ngeen ko ma teel bàyyi sama teel wax booy seeni programme ñoom ñu ne ba jours ñu door ni ma dañ may jënd bee man leen dematuma. Mm. nii la demee ndax loo wax ni da ngay jënd bee la le le le deux. Mm-hmm. nga nag ba le douze te le tournée bi la quinze la. dégguma leen woowuñ ma nii la demee am na nag ñu dem mais man damaa demut man yàlla ak may dimbali fii maa am samay xew. man dawuma awma problème yooyu. bi dafa tuuti problème moo tax problème bi barke sëñ Abdou Karim man yëguma ko ndax daam dem na ndax jour bii daam seen di dem aéroport bi ñuy jënd billet yi ci jour bi billahi wallahi taalahi tele laa toog mm-hmm. daam woona ma ni ma dañ ni dañuy jënd yow ak Pendo ak man billet man la daam seen audio mbaa ngi man ko daam seen man maan la dematuma tournée barke sëñ te man ma xasee ba waat sëñ Abdou Karim rek loolu la man ko barke sëñ Abdou Karim dematuma ci tournée boobu demal du succès billaahi wallaahi taalaahi du succès bu doon succès la kay du demee ni mm-hmm. man ma topp leen di leen woo ni leen ah sawaay tey la le 6 ngeen di ngeen di jënd bii yi. boobaa ma yoon nga ko teg voilà man dama bëgg. ndax xam naa Europe du fii. Mm-hmm. fii tey bu ma neexee taxawaalu ba fajar danaa xam fu ma jëm. mais fee bokkul boo génnul nag doo ko xam. man nag voilà da ngay waaj bàyyi ñii ci ay conditions yu leer ndax mm-hmm. ku ne am jabar ci man lañ nekk. Mm-hmm. te li may tëgg la ñu yàlla di boole ma koy bokk ñoom. kon mënu ma jékkee damay tukki saa su ne damay tukki mais ñoom it bu leen neexoon dégg la leen nit ñi di wax mais xooluñ loolu. yàlla moom mooy sàkk njiit ñu ñu jiital ma nag ànn ceeg man xooluñ lu may nit ñi di may mm-hmm. damay dem ñu may ma lu ne ci xew mais duñ xool lool noonu ñu jàppale ma te yàlla tax kon ñii tamit duma ma dama leen respecté ñàkk dem gi nga ñàkk dem est-ce que amul créewul benn problème sa diggante yow ñi ko tëggoon après non anyway ñoom ñoom la rek ah man l' maa ngi suivre seen stat yi ñu ngi suivre sama stat yi. Mm. ma man woowu ma leen. a doy moom lay def. ñu ngi gis stat ñoom ñoo daan woote. oowaatuñ mm. ah, ma man maa ngi toog. di dëbb na xew yi ba mu nooy ci Ndakaaru gii ñuy gis ñuy gis xam nañ ne duñ toll ah, la waaw gis nañu que bongo maan yi bëri torop su hmm. mel ni am na duma ma cité nag ay tur mais hmm. sa nawle bongo maan yi hmm. concurrence am si seen si diggante maa la dàq bongo maa la dàq lii noo dundee loolu noonu waaw xam nga ku nekk boo tëddee ci néeg soo tëddee ci néeg nelaw xam na ki la mën <laughs> mais tey man na ma ñëpp dàq man moom man mi ñu wax naan maay roi di bongo mm. man delloo naa leen lépp na ma ñëpp dàq mm-hmm. waaye naa ci tekki mm-hmm. man dàqantewu ma mm-hmm. waaw dàqantewu nañ jël lépp man dàqantewu ma te bu ma kenn waxati roi de roi di bongo bu ma kenn waxati président di bongo man buñ ma wax man naa topp seen gannaaw léegi man man mi man man bien léegi nangu naa topp seen gannaaw gannaaw léegi man man mii man man vieillir naa léegi nangu naa topp seen gannaaw maa ko wax fii ci seen TV télé bi nga xam ne wër na àdduna mhm. foo dem da nga ko fay fekk seen TV man jiite naa bongo maa yëpp léegi man nekk seen gannaaw waaw man jiite ah? ah. sa digganteeg comme ñu ngi waxtaan sa euh, mbokk natango bongo maan yi eh. sa digganteeg bongo maan bi ñuy tegg fan yi hmm. am ndaw nan la demee waaw moom li laaj dafa nekk loo xamante si ni dafa nice hmm. te dafa nekk loo xam lu ñu war a laaj la ndax man ci lu waar woowu laa nekk am ku baax la usin Mbaye ku baax la Galas ku baax la ñoom ñëpp samay nawle bongo maan lañ Ousseyn Mbaye bi newoon dox mbedd bi ñooñu ñëpp ñu ngi fi ma séq ak ñoom nag jàmm ñu ne sama xarit am day toog ci télé saa su ne du ma tudd bi ma jógee Amérique toog naa fi ni leen xaw koo woon te dëgg la man xaw ma woon man bongo maan yu bari ñoom ñoo may woo di ma wax man la diw bongo man la mbay bongo man la Moussa bongo mais du ma xam ndax bungu maa ne ñoom ñoo bari mais ku ma ci woo damay wax ak yow gaf ak yow reeg yow bi ma ñëwee ñu laaj ma leen xaw ma kooku ndax man depuis trois mois maa ngi Amérique xaw ma lu gaal gi di rii bi ma ñëwee waa sans limite woo euh, euh, ma invité ma man leen xaw ma ko bi ñuy wax defe naa Pape Faye mii leer na ko Touba la ñu waxee naka te am sama sœur ay xaritam lañ affaire bu garaaw billaahi wallaahi taala sama mag bu jigéen xaritu am la man xaw ma ci dara moom na ma bi ma waxee loolu woo ma mu ne ma vie yow lu waxee ni xamoo am ah, ma ne ko xaw ma mu ne xamoo ko mais nga waxee ne ma ko déedéet Adja man mënu man noonu laa mel mm. sama yaay may chaque jour mm. man mënuma turse mm. li nekk sama xol damaa gaaw a gis sama bopp loolu rek ay sama defu ma ne ko xaw ma ko nakate ama ah, gën xol ci lu yàlla bind billaahi wallaahi ñu gis mu ñëw biñ ñëwee saa neex indi ko ma toog sama oto nii ma tëj oto bi nii di wax téléphone rek man daa maa jeg jékki gis ko muy ñëw man quoi Sanekh kan la indi pour nga xam li ma la wax nii rek mu daal di ñëw rek am dafa ñëw rek kott ma. billaay waaye waaye Baye bi Vénia maa la bëgg. billaay wallaay taalaay dama laa sopp dama laa bëgg ndax sa gëm-gëm te jamono ji ku kuy bongoo ñaan na yàlla mel ni yow waa loolu kan moo koy wax sa nawle ah pour ma te dañuy wootante dañuy wax whatsapp dañuy waxtaan maak moom mu may wax day wax yoo xamante si nii man damay mujj ne est-ce que kii boobu est-ce que kii taasukat la sax ndax li may waxal ma xam ni kooku xol bu rafet la yor moo tax am ay waxam man mënatuma jox ku baax a ngi noonu. barki Serigne Touba Mbacke ku baax moom laa ñëwee. Vieux Niang ñu euh, sa sa. mbokku rongokat yi mm. nga xam ni bëgg nañ mel ni yow mm. ay xale lañ euh, door a guñ daal mm. ay xale lañ ñu nekk seen ay tànk mais ñoom euh, ni ñuy bongewee ak yéen ni ngeen di bongewee du doon benn xam li tax parce que ñoom dañuy xëy soo wangoon di wër xew yi te kenn du leen woo loolu tamit ñu bëri dañ koy ñaawlu des fois ñu ñëw def fa la nga xamante ne war ñu ko fa def wala ñu ñu utiliser la nga xamante ne war ñu ko utiliser ba ku leen ci gis du leen naw lan ngay wax ñooñu nga xam ne ay tànk lañ bëgg topp bëgg a mel ni yéen. waaw loolu li euh, Marina laaj question bu am solo. loolu toog naa ci lay wax ko ba sonn. chaque ma ni leen dee leen toog di xaar alo gëm leen seen bopp xale ngeen man damay toog beneen saa jàpp benn télé dégg ñu invité boobu man taasukat ñu ni ko yow koo bëgg a mel mu ni damaa bëgg a raw fi ñaa nekk. Mm-hmm. tey boo bëggee toll fi vie ñaa nekk wala nga raw ko nga am yu bari yoo xamante si nii da nga koy moytu. Mm-hmm. moytu bi mooy lan man tuxuma naanuma am naa gëm-gëm correct naa léegi est-ce que ñooñu dinañ mën a gëm loolu noonu boo ko gëmee ndax fii góor laa jantal men laa damay doxaan danaa dugg ci gelli wala ma def loo naka sudul mais ak waa la ko laaj maa ngi non déedéet ah, na leer vieux waaw ah. kuy sa gel bu dee da ngeen maa bëgg a may fii gel ngeen may ma koo gel waaw. jël ci xale. jël xale waaw. Eh, dégg nga jël ci xale. bi sax mel na mel na. <laughs> Eh, ah, waaye li neex na xale bi jar na doo may dara. déedéet da bi dara ba pare. naan sa xel mu yeggale après mu naan. ah am na. Eh, kan amul aw ma. non amul. mais bu woon ba pare après naa. Ah? amoo appel na ko si yooyu de nga naan kii international baa ngi noonu batt toog man damay jekk rek gis ko ci. Marina sa question. doo ko bàyyi aywaay Marina kii posé na ko question Marina. kii charme la doo ko may dara ci bongo kii charme la. may ah. maa fa bëgg. buus ma bëgg ma ay bëgg. Marina mu wuyu sax zone <laughs> euh, bi xale ah, na ñoom ñooy dund loolu. Mm-hmm. ak samay rakk lañ samay frère lañ. te dañuy seetaan ni te dañ may suivre ñoom fu ma toog yàlla na leen yàlla soppi soppi bi mooy nañ am gëm-gëm xam ne ñoom loolu lañ bëgg a terale seen nit ñaa ngi xew saa su ne takk yaa ngi fi anniversaire yaa ngi ngénte yaa ngi fi nañuy am gëm-gëm même boo bu ñu leen woowul sax ci xew ngeen dem boo leen di dem na ngeen correct sol lu rafet xeeñ parfum bu neex boo leen demee bu leen di ñaan ñaanu force ndax may ma du force nit ki mënula fay ba pare ñëwal ambiance su xolam neexee mu may la su kontaanee ci yow may la mais damay gis yenn yoo xamante si nii ay affaires yoo xamante si nii dañuy toog ni fii ñaa diw de dafa ñëw suñu xew démb Youssou Ndour koy ah, dégg xew démb ah di ma ñaan ma may ko ma mayuma ko mu naan ma dagaas fëtsee te loolu baaxul nañ leen correct ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te samay frère ngeen nañ leen yaatal affaire yi gëm-gëm la suñ ko gëmee ndax bongo ku ne xam na ni macha allah daa xew fi mu toll nii bongo moom looy def jamono jii te boole woo ci bongo ki tamaaki sama non doxul doxul dafa xew ci léegi Euh, vie bi ñu tàmm di gis ci télé bi ak vie bi nga xamante ni bu bonguwul la si xal ma opposé bokkuñu dara man première fois bu ma gisee vieux bi nga xamante ni yorul bongo dama ne non non c'est pas possible kii du vieux parce que vieux boobu du siggi xool nit du sax wax mais une fois que euh, caméra yi tàkk wala micro yi day mel ni da nga jël vieux bu yaru bi rek remplacer ko ak beneen vieux bi lan moo tax loolu cest à man comme man ni ma mel quoi comme mooy man comme man ni ma mel bu caméra yi tàkkee dinaa ah, jéppandiku nii ah, mais bu caméra yi fay ma dama bëri kersa ah, loolu dëgg nga xam ne yow nekk ñu bari dañ loolu gis naa ko. man bu may rut bongo du ma xool nit. boo xamul ni kii vie ñaa la doon sax mm. bari na toog naa nit woo sama yaay. ni ko sa doom ji ni muy def ci xew yi dafa am lu muy jël. Mm. si vie jëlu dara. cigarette. Mm. parentage su may bëggee déconné nii laa koy tux nii di déconné nii. barki sëñ Abdou Karim saxuma yàmba naanuma sàngara barki Mouhamed. dëgg la xawma ko. man duma tox xawma loolu. man sama jabar ji bànn la de ay waay kii laa nii mu may commencé xëcc nag muy seen seen TV naa leen ñaanal fi ngeen jaaree gudd fan ba fan te fi ngeen ñëw mm. nee la ñi ci kaw ñi ngi coow sànq ba léegi na ambiance bi dafa bëri mm. nañu xool nuñ ko wàññee lii du yoon waay mm. ambiance bi dafa bëri ah. gars yi nee nañ ambiance bi dafa bëri ah. ci kaw police ngi ñëw daa bëgg ma yëngal ko yow naa ko yëngal rek police laay bañ mu ci fair play rek te kii ni muy bañ a yëngu daal ana ma jàpp biir yaa ngi gis sama xarit non moom mën na ubbeeku trop lii day yëngal yëngal ku fan lañ demoon démb la wala bëri fan lañ demoon di tëgg ma gis gel bi toog ni nii teg la tànkam billaahi lu garaaw man wooy ñoom fi ma nekkoon di tëggee moom bokkut ak foofu noonu mais man maa ngi tëgg di waayal ni di di tëggal ni man daa maa jékki-jékki gestu as ah, bi di di dóor ma jékki gel bi toogoon teg la tànk mu jékki-jékki naan ni di ma ma ne ko soxna si kon yow di nga yëngu yow di dina yëngal kër ku di ah léegi ah léegi léegi man c'est que man à chaque instant comme yi bu ci nekk benn la mais tama mm. na tama kase tëgg ma xool tama doomu doomu doomu dama kase dama kase séeréer nogay dama fay problème bu tama laa am man dama lay dama lay expliqué problème bu tama laa am. non mooy sa seytaane. mais vieux lii am na seytaane lan yow nan nga def ba ak ci créer genre group bi nii nan nga def ba dajale leen ak ni ngeen déggoo yi foo leen fëgg si bi rek ñëw si waaw moo tax heure ma génne damay am problème nag du ma la nëbbu de. Hmm. heure ma demee Europe damay am problème de. lu leer ñi may tëggal fee ak lii bokkul. bokkul ñi dañu miin ñi def naa ak ñoom 10 ans. ñii nii 8 ans barke la moo ñaar ñii. Magu Pape yaa ko ci man. mais ñi ak Sanex. waaw ñu waaw ñoom yàgg nañ ci man. Mm-hmm. mais Pape Faye moo yor sama musique. Mm-hmm. dama bi nga wax ni mm-hmm. moo yor sama musique fi mu toll nii mënoon naa jékki-jékki rek dugg contre temps. man ma te dinaa ko def fii naa jékki-jékki taasu. ñoom de xool dinañ ma topp. ba dugalaat ma waaw dama dem ba. man taasu péeloo laa ko def te bu njëkk ba bongo kese kese kese la woon. Mm-hmm. ma ni càpp ni tama war na cee bokk. Mm-hmm. ñu ni déetawaay man leen sabar war na cee bokk. ñu mm-hmm. déetawaay man leen bool war na cee bokk léegi day doon orchestre. bu njëkk ba bongo kese la woon foo gisoon bongo rek léegi ay bongo quatre wala trois. amul woon bongo ay sabar mosut ànd. waaw ma ni leen lépp waaw eh, maa maa ngi ci biir xam nga dama jaar. ñoom lu tax du ñu génne ay album. Ah, lu tax du ñu génne ay ay single yoo xam ne single lu bongo la. Hmm. Ah, lu tax du ñu woote fu mel ni Grand Théâtre hmm. woote fu mel ni Sorano. ñun ñun ñun ñu ni Vienna bongo tey mooy tëgg soirée bu mag. Hmm. Ah, woo bongo kat yi ñii ay ménèbre am nañ. waaw journée la leen di fay. yaa ngi dégg ñu def ko affaire bu ambiance bu neex waaye ñoom duñ ko def. waaw bien lu waral lool. li mu laaj loolu am na solo trop naroon naa ko def. ay ménèbre la waaw naroon naa ko def ñoom Pape Faye lay suñu naroon naa ko def <laughs> naroon naa te mu moom xel. nuit di maa ngi koy waaj. so son bi ma mujjee def noonu privé boobu ma génne woon. waaw waaw avant maa waaj bongo mu ah, ci biir. bi may def loolu may def noonu syncope naa commencement bi moytul ma noonu privé mën na laa gaañ. bi ma naan nii. dafa dal grave mais noowee li grave mais kër goo am ni miir xale ñu war a gis ngi anniversaire yi kenn waxatul kenn ñëpp fi ñu daal di ko la sa affaire bi gën a sa affaire bi man naa doom lay binta waani sama binta moom bokk nda yaa war a sóor leer na loolu yéen yàlla yàlla ma booleeg yéen xale yi pare yëpp bëgg fiyee ñaar ah, foofu rek laay sante yàlla ma wax la leen mbay teelu garaaw hmm. xale yu riis yu baax yi yu correct yu fashion ku ci xew wala ngay bësee macha allah yàlla sa xel ci dee ñaar ko. waaw loolu bi muy dee ñaar. mën naa ko ba ñu fekk ci nga xam ne sedd xanaa loolu man damay laaj yow damay laaj ñi nga xam ne ñoom la la yàlla booleel. Ah, loolu damay wax kii laay laaj.